قرنا من نوره نيل من الله من الوعي قرنا من نوره bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala sayidil awalina wal axirina ajmain sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki Thiam Sono TV ñoo ngi leen di wax baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ci suñu tele bu tedd bi fa tabarakallahu muy Thiam Sono TV ci sunu émission bu barkeel bi bu tedd bi ndax téere bi moo barkeel muy téere Seex Seydul Xaaji Malik bi ñuy wax Taysiir mag ñi tënk ci ñaan bu am solo mooy allahuma altuf bina fi taysiri kulla usrin fa inna taysira asirin alayka yasirun wal muaafati alayka yasirun fa asaluka dunya wal axira loolu tabarakallahu am na fu muy dugg ci tey taysir secret piir lay doon te gaaw na ci xaalis gaaw na ci àdduna gaaw na ci leneen waaye tabarakallahu ñu dem ci suñu lesoo di nuyu bu baax a baax fa tabaarakallaahu xalifa bu tedd ba ca tiwaawoon di sunu maam sëriñ Babacar Mansour tabaarakallaahu teg sunu baay ju tedd ja sunu baay alxaaji Maodo borom fa tabaarakallaahu fa in kaana jismi muxayyadan fi makaani fa ruuxi ladaykum fi saadati wal bisri teg fa tabaarakallaahu borom daara ji muy sëriñ Babacar Abdoul Aziz ak i seeni rakk ñoom ñëpp waaye nuyoo yooyu yi muy li muy tedd tedd di sell sell dañ koy paqueté ba mu rafet ñu jaarale ko ci loxol sunu buntu ci kër Cheikh Seydul Haaji Malick muy sërif Ibrahima Aydara Atijaani tabaarakallaahu sarrafaka rahmaanu bi tasrifi jeddika dara Aydara Atijaani ñu di ko ziyaar bu baax jël suñuy nuyoo jaarale ko ci loxom mu tegal ñu ko ci loxol xalifa bi ak rakkam ak ñoom ñëpp fa tabarakallahu ñu del ci sunu taysiir bu tedd bu sell bi ci télé bu yiw bi di Thiam Sono TV tabarakallahu di nuyu bu baax alxaaji Mansour Thiam di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla gën a dëgëral bi barakati sayidil wujud tey fa tabarakallahu am sunu sëriñ bu baax di sunu sang di sunu soppi mu fekkee fa tabarakallahu sunu jotaay bu tedd bi di alxaaji Abdul Aziz Thiam di turandoo alxaaji Abdul Aziz si Dabba di sunu sëriñ di suñu sang di suñu lépp ñu di ko ziyaar bu baax a baax fa tabarakallahu mu mel ni mbokk yi ñoo ngi yemoon ci law lam yalux fii fadail kawni talaatuhu kon tabaxal bariyat fi zalma tabaarakallaahu bu woon ak fenk gi yonente bi fenk juddu maanaam isa wadaatihi sammihi bu muhammadan bu amul woon kon mbindeef yépp dañuy des ci lëndëm lëndëm boo xamante ni dañuy taxaw di palamtiku di windeelu ci biir lëndëm bi te kenn du xam fi nga jëm tabaarakallaahu lëndëmaay boobu ne ki ko génnee dañal ko ba lépp a dañ nekk fa tabaarakallaahu ci xéewalu yàlla ak wërsëgam ak lépp kookoy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que wa in kaanu min qablu la fi dalalil mubin li jiitu yonante bi di ñëw fekk réeraange bëri na yeneen yi bëri na waaye ba mu ñëwee rek la leeral ñëpp sëñ Mansour maa ngi jëm ci béyit bu yéeme waaw ci nga yëgee ni Seydi ni mu ko bindee da ngay yëg ni xam na leeri yàlla yi ni mu tëddee xam nga law lam yalux fi fadail kawni tal atuhu maanaam law lam yalux bu yonante bi feeñul woon maanaam leeram mooy tala ala wajhuhu bu leeram fenkul woon fii kaw kawni ci ndend gi ndenduk nekk téef gi muy àdduna bi tal atuhu ak akub fenkam tal atuhu akub amam tal tal atuhu akub juddoom moom sayyiduna Muhammad kon tabaqa danañu des albariyatu mbindeef yi fii zalmaa i ci lëndëm yaa allahu ca borom bi subhaanahu wa taala lëndëmaay boo xamante ni moo koy dogal ci jaam i moom yàlla subhaanahu wa taala ndax dogaloon na lëndëm ci jaam yi lëndëm boobu ki ko leeralaat mooy sayyiduna Muhammad waaw moo tax nga dégg Baay Ibrahima Ñas ca kaw la mu ne mata bada fi daajil bahimi jabiinuhu yalaxluxu misla misbaahi duja almutawaqadi ca téere bi ñuy wax majmu bu Baay Ibrahima Ñas moo ngi ko fa bind mu ne mata bada bu yonante bi xësee tàmbali fii daajil bahimi ci kukkub lëndëm ak daaju kukk waaw fii daajil bahimi ci kukkub lëndëm tabaarakallaw jabiinuhu jëxëm ba yalaxlaxu dafay melaxati ah fii zalma yi ci biir lëndëm ya mis la mis ba i duja ba mel ni làmpub lëndëm ya al mutawaqidi ba ñu laal ca contact ba tabarakallahu béyit boobu lañu ñu tàmbalee tey léegi nag ñoo ngi jëm ci béyit bu yéema sëñ man Mansour papa du déglul sa baay Seex Seydul Haaji Malik dafa ni nuurul minan nuuri qad awdaxtuhu xikaman tafiidu faydan alal axlaaqi yàlla nuuru leer la moom yonante bi mina nuuri bu tukkee ci leer loolu mooy lan mooy anna minallaahi wal muminuuna minni nuuru leer la moom yonante bi mina nuuri bu tukkee ci leer leeru yàlla la yàlla bindee sayiduna muhammad moo tax benn nitu yàlla papa du dafa jaamu boroomam ba jege yàlla di laaj yàlla question yàlla di ko tontu mu ne ko yaa rabbi yàlla ne ko labbayka yaa abdi mu ne ko min ayi say in xalaxtal insaan yàlla ne ko xalaxtul insaana min nuuri walakin al insaan laa yaarifu nafsahu ci lan nga bindee doomu aadama yàlla ne ko doomu aadama maa ko bindee ci sama leer waaye li fi ne mooy doomu aadama xamul boppam parce que da nga koy fekk ci mbedd bi muy foye boppam ci ne am naa jinna sàngam am naa jinna sàngam am naa jinna sàngam te fekk doomu aadama gën jinne ta mën koo yilif te yëgu ko moo tax yàlla ne walakin al insaan laa yaarifu nafsahu xoolal jaam bi laajaat boroomam ne ko yaa rabbi yàlla ne ko labbayka yaa abdi mu ne ko min ayi say in xalaxtal insaan xalaxtal malaa'ika yàlla ne ko xalaxtul malaa'ikatu min nuuril insaan xoolal walakin al insaan laa yaarifu nafsahu ci leeru doomu aadama la yàlla tubb bind ci malaaka ndake ñun ñoo gën malaaka parce que loolu alquran lay na ko kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lama daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusli kunna la ñu doon xaat xaat akramal umami loolu la Busayri wax tabaarakallaahu moo tax doomu aadama li mu am bu ko xamoon tabaarakallaahu dana yëg ni am na lu bëri ci boroomam ñun troisième position la ñu jël ci yàlla walillahi l izza wali rasulihi xoolal walil muminin soriwuñu dara yonent bi bu d'accord rek ñu àgg ci yàlla bu fa toogee itam ñu jaar ci moom àgg ci yàlla fa yaa xayu yaa xayumu yallaahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati kon su ko defee fa tabarakallahu e xat sa dëgg-dëgg aw ndaxtahu dénk nañ ko xikaman xereñte maanaam leer wi nga xamante ni dénk nañ ko sayyiduna muhammad mu ànd ak xereñte leer boobu nekk tafiidu dafay bobbi faydan akub bobbeeku alal axlaaqi jëme ci mbindeef yépp yaa allahu yow yàlla yu loolu yow rek ko yaa ko mën keneen mënu ko ku dut yow waaw léegi nag firi nañ ko ba pare léegi nag nuurun mi na nuuri ñu fas yéene leeral ko jëm ci mbokk jullit yi ci masala bu ñu laajoon sayiduna muhammad kan moo ko laaj hadis bi ñoo ngi ko solo ruwiya al imam ahmed fi sanadihi an amirin qanbaliyu moo ko solo ne innahu qaala qultu ya rasulallahi moom dafa laaj sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko laaj yonante bi nag di tontu ci nuurun minan nuuri il eh, eh, nuurun minan nuuri xat aw daatuhu xikaman ci loolu lay tontu question bu rëy nag la ko laaj Papa Abdou ay na kaana rabbuna xabla an yaxluqa samawati wal ardi yàlla fu mu nekkoon laata moo bind asamaan ak suuf question bi kuñ ko laaj ku dul ngeen ji mbindeef nga gàkk ku ñu ko laajati nga tontu nabee ko tontu ba noppi ayna kaana rabbuna xabla an yaxluqa samawati wal ardi yàlla fu mu nekkoon laata moo bind asamaan ak suuf yonente bi xaala Mustapha ne ko kaana fi lgamaami fawqahu lhawaau wa taxtahu lhawaau summa xalaqa al ulamaau nag fii maa xuliqahu llaahu ah xabla al arshi léegi nag yonent bi tontu ko ne booba yàllaa ngi ci niiru leer muy nuurun minan nuuri niir boo xamante ni leer ko fale ci kaw muy nuurun ah, leer fale ko ci suuf muy minan nuuri ñu def ca nag xaw a xat at aw daatuhu xikaman muy xereñteefu yàlla yàlla ci xereñteefam la fa toogee mooy leer baa ngi fa mu nekk ca fa nekk yàlla dugg ca ca fa ca dugg mu defar ca ca lamu cay defar moom lay question question bu ne mel nag la Seydi Hadji Malick waxoon an al ghamama alladi maa fiihi fiihi min al gharaibi al ñu ne Maodo li nekk ci niir wi lan la mu ne dafa fekk ne ne kas fa sirri wuññu sekkare lam tusami Malick du ko def waaye niir ga daal la ca ne moo nga mooy niir bi daan tiim sayyiduna Muhammad wa tabarakallahu Papa Abdou mu ne fawqahul hawaa'u ca kaw ngelaw moo fa féetewoo ngelaw googu nag leer la mooy nuurun mina nuuri ah wa taxtahul hawaawu suufam ngelaw nekk ca muy ngelaw loo xamante ni nuurun mina nuuri summa xalaqa arsahu muy xat aw daatahu xikaman ah alal maa yi aras yàlla ko bindee ci ndox waaye ndox ma moo ngi ci leeru xaqiqatu muhammadiya ndox mi ñu bindee aras ci ñàkk yonante bi la bàyyeekoo waaw alal maa i aras ci ndox lañ ko bindee waxtu li fal ulama nekk borom xam-xam yi wuute nañu fii ma xalaqahu ci li nga xamante ni yàlla moom la njëkk bind inna awalu shay'in xalaqahu llaahu taala alxalamu yàlla xalam bi la njëkk bind xalam moom la njëkk bind tabaarakallaahu moo tax boo waxee nuun wal nga ciy teg moom la njëkk a bind lan la ko bindee min nuurihi ci leeru sayiduna muhammad mooy nuurun minan nuuri xat aw daxtahu xikaman ci xereñteefu yàlla xikam boobu la kontine jël leeru sayiduna muhammad waxii la wax nañu mina lulu atin bayda moo ngi ko bindee ci wurusu leer bu weex tàll muy leeru sayiduna muhammad lan la ca binde mooy xalam nga xalam gi yàlla nga ko binde ci leeru sayiduna muhammad xalam gi nag ci leeru mu muhammad tax na guddaay gi na mu toll yonante bi wax na ko moom xalima bi xam nga yàlla ni mu toll kenn xamu ko papaab du kon xalima bi muy bindee kenn mënta natt ni mu toll waaye yonante bi def ko xayma def ko xayma ne wa tuuluhu guddaayu xalima bi maa bayna samawati wal ardi kooko ku dut yàlla doo ca mën a bindee ne waaw guddaayu xalima bi eh, Pape Mansour toll na ci suuf ak juróom-ñaari asamaan suufu juróom-ñaari suuf ba ca suufa juróom eh, asamaani juróom-ñaar guddaayu xalima bi yàlla bindee léppam toll na noona yonente bay wax de ku dut Moustapha nekk mënoo détaillé yi waaw maa bayna samawati wal ardi summa xalaqa lawxu min nuuri sayiduna muhammad yàlla jël lawxul mahfuz bindee ko ci leeru sayiduna muhammad ba léegi mooy nuurun mina nuuri xat aw daxtahu xikaman ba léegi ñoo ngi ci xerañteefu yàlla leer boobu rek la topp di dem gis nga boo déggee sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum muy wax ni eh, fa tabarakallahu baa u basmala loo mën a tàmbalee ci ngay tàmbalee sëriñ Cheikh nee E, boo boo boo wutoon maçon tey ñu nar la mëlal première peel bi mu ne nëkk ci suuf si rek fa peel ba njëkk a njëkk tomb rek tomb baa ngoog mu ne yaa fay nekk di tasaare ba mu ba mu taxawal kër waaw yaa fay nekk di tasaare ba mu taxawal kër baa un xoolal tasiirun tanaqulan wa bi sayriha wala tat xutuuta nek xutuuna bunyaanan musayyada yaay nekk ci baa bi di ko di ko di ko randal di ko ràndal ba baa bi mujjee indi kër yaa cay nekk di ko randal ba mu jural la leneen waaye lépp looy def booy bind ci sa xalima tey première boo ne biir big bi nëkk rek baa ngoog yaay dem nag di continuer baa bi di tas ba mu doon eh, téere waaye lu nit di tàmbalee rek baa u la ko bas basmala la koy tàmbalee ah yàlla bindal lawx lawxul mahfuus min nuuri sayiduna muhammad nuurun min an nuuri xat aw daxtuhu xikaman waaw baadahu wa huwa min durratil bayda nee nañu nekk leeru bi ñu bindee lawxul mahfuz te lawxul mahfuz papa abdou mooy sayiduna muhammad alquran a ko wax wa kulla sayin axsaynaahu fii imaamin mubiin imaamin mubiin boobu mooy lawxul mahfuz lawxul mahfuz li muy mën-mën bind alquran yëpp benn satar lañ ko fa def ca lawxul mahfuz ak ak ak dasit boo àggee lawxul mahfuz alquran benn satar la fa ak dasit ci suufam kaamil gi yëpp te lawxul mahfuz mooy sayyiduna muhammad fi imaamin mubin waaw tabaarakallaahu lawxu lawxul mahfuus ñoo ngi ko bindee ci leer googu mooy nuurun min an nuuri xat aw daxtuhu hikaman tafiidu faydan alal axlaaqi yallaahu ci leer googu ci durratul bayda min durratil bayda safaiquha min ya minal yaxuutil ahmar fooy ca lawxul mahfuus ñoo bindee ci eh, wurus bi ñuy wax yaquutatul fardiya waaye axmar marga la nekk axmar googu tokkontal la ñàkk la bu bàyyeekoo ci yaramu ngeen ji mbindeef muy sayyiduna muhammad ah waaye nag lawxul mahfuus guddaayam xalima bi bu tollee diggante suuf ak asamaan kay guddaayu lawxul mahfuus bu tollul ak loola xalima ba pour mu bind ca day jafe waaye lawxul mahfuus yonente bi nee na toll na juróom-ñaari suuf ak juróom-ñaari asamaan ci guddaay ak ci yaataay allahu akbar ba pare yonante bi ne ma bayna samaa'i wal ardi wa ardihi min al masriqi ila al maghribi yaatuwaay bi min al masriqi ila al maghribi yaatuwaayu lawxul mahfuz waaye lépp nag min nuuri sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuurun min an nuuri xat aw daxtuhu xikaman ci xereñte boobu la ko yàlla bindee summa nadara allah ilayhi nazratan haybatan fan saqa wa qatara almidaad yàlla daal xool lawxul mahfuuz am na ay dex yu bëri yu nekk ci biir àjjana papaab du yàlla bi bëggee bind jëmm sayyiduna muhammad jibrilu la yónni fa la ñu amee zawiye cosaanal zawiye fa la bàyyee waaw maa ngi wax lu doy waar nekk boo gisee seex sayidi ahmada tidiane am zawiye fa la bàyyeekoo fa xabada xabdatan min zawaya dunia jibrilu bi mu àggee ci suuf ñeenti côté yëpp la tubb suuf min zawaya dunia zawaya mooy lu am kat koñ moo tax Cheikh Seydi Ahmada Tidiane ba mu ñëwee rek lépp lu mu am mu tuddee ko zawiye moo tax nga dégg sëriñ Habib mu yàlla dimbali jë doomu xalifa bu tedde bi mu ne boo dee góor góorlu ci zawaayaa yi nga am yitte ci xafaayaa yi dara du mën a dox sa digganteeg mazaayaa yi amat mazaayaahu bal daarat zawaayaahu waaw moom moom noonu la ko firee rek dem yoonam tabaarakallaahu waaw yàlla nag di ko xool ba ngëb ga ñëwee jibrilu ngëb ko yàlla def ko ne bul tijji sa loxo dex bu nekk ci biir àjjana rekk sóob ci sa loxo jibrilu di sóob loxom ci biir dex yi di sóob loxom ci biir dex yi di ko sóob ba génnee loxom yàlla ne ko tegal sa loxo boo tegee sa loxo nag ngëb gi daanu nga tijji ko tabaarakallaahu su ko defee yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla sàmm ba tey rek ñoo ngi ci leer gi loolu moom duñ ko leb mukk incha allahu rabbi bayit bii ñëwaat fa la ñuy tàmbalee àllarba bii di ñëw incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ci bayit bii di ñëw ñu yeggalil leen ngëpp googee jibrilu ngëpp ba indil ko yàlla yàlla ne ko tijjil sa loxo mu teg ko la ca xew yëpp incha allah nuurun mina nuuri xat aw daxtuhu xikaman lay bàyyee ko incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu min nuurihi naylu ma nilna min alwaay min nuurihi